jërëjëf mbokk yi ñu ngi rafetlu seen ànd ak seen actu ñu ñëw ak yéen ci entretien bu seen actu am mbégte di dalal sëriñ Modou Bara Dolly nekk responsable politique alliance pour la république fii ci Touba mais nekk également conseil économique et social bokk ci convergence wala jiite convergence euh, euh, sàmm wala aar ndonoy mag ñi nekk également conseil économique et social sëñ Modou ginnaaw bi ñu la nuyoo li ñu lay njëkk laaj. mooy président de la république Bassirou Diomaye fay ñëw na fi jëmbat fi ay garab waaye tamit daje na ak euh, ki nga xam ne moom mooy xalif général des Mourides ñëw Bassirou Diomaye fay boobu muy ñaareelu ñoom ci Touba noo ko jàngatee. waaw ñu ngi lay nuyu El Hadj du di la sant bu baax di nuyu euh, le xalifa général des ak mbooleem xalifa bu ne ci réew mi euh, waaye di ñaan yàlla bisu safar yii ñu duggit luñ ci ñaan yàlla na ko sunu borom nangu. ba bis ba egg ci màggal gi lépp luñ ci jaamu yàlla ak lépp teraanga yuñ ci def ak bernde yàlla na ko suñu borom nangu ndax borom bis bi bi mu woote dane ka leen ngeen sant la ma suñu borom kon euh, ma ñëw ci question bi nga xam ne euh, moom nga yëkkati wax ko muy la président Diomaye bi mu ñëwee Touba euh, ñëw na Touba bi mooy deuxième fois muy ñëw Touba ñëw gi nag ci ak ay garab lañ ko aj loolu lu am solo la jëmbat garab loolu tuyaaba la ci lu am solo la duñ mën a def lu dul rafetlu ko waaye waxtu nekk damay wax ne bi mu defee loolu ba noppi dëkk bi ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne nii tey mën na noo wax ne ay junni junni junni nit ñoo nekk ci biir ndox mi kon gëm naa ne état buñ ko dee wax continuité tax ñu di ko wax nit ñooñu war na leen mën a xalaatar war nañ leen gën a mën a jàppale war nañ leen a gën a mën a dimbali kon loolu euh, jàpp naa ne demoon ci nit ñooñu tamati xool seen nekkaay ak seen dund lu am solo la euh, li may wax it wax na ko wax na euh, ñëw na ci xalifa sanaa di am na discours boo xam ne it def na ko fa discours boobu mu fa def it lu mat a bàyyi xel la ndax comme que ñu ngi jëm ci màggalu Tuubaa ci li ci des deux semaines la tàmbali euh, ca bi mu yëkkatee ay kàddu dafa wax ne moom ci jëmmi boppam euh, lii nga xam ne mooy màggal gi gii ñu jëm euh, gëm naa ne jàmp na baatub jàmp na la wax ca man ci wolof lu ma ko dégg di dégg li jàmp na moom boo toogee nit di ko wax na ko nangam danaa ko def mu ne la jàmp na bay boo nga bàyyi xel ne nangam joojee mu wax bay boo yow nga jéem a dem nekk ci di ko def ndax jàmp na moom ngantu teraanga la kon gëm nañ ne état continuité la ca am na loo xam ne defoon nañ ko fi ñoom ñu ñëw yore ko jàppoon naa ne continuité boobu waroon naa mën a am ñu gën a continuer taxawu askan wi taxawu bi ñu war a taxaw ci màggal gi ñu def kon waaye foofu li may woote ah, mbokk yi nga xam ne ñoo bokk Sëñ Tuubaa ne ci dëkk bi ak mboolem ñi nga xam ne yàlla dogal na ah, ay murid lan bay boo ñu teel a waajal màggal gi kenn ku ci nekk la nga man ak fa nga war a mën a taxawee nga jeg taxaw fa ndax état moom ah, président am na signal bu mu def signal boobu nag bu ëllëgee bu mbett kenn ndax nit moom fu mu ne la jàmp na yow moom mi waxal nga mën a la jàmp na bay boobu moom wàllu googu nga jëm na doxal sa bopp ci fas yéene doxal sa bopp ak fas yéene wax ci lu jëm ci màggal gi ñun ñëpp ñu organisé wu fas yéene jàpp ci màggal gi ba ca màggal gi moom sañ Tuubaa ko yore ci sant suñu borom la kon lépp it buñ ci jéemee kémtolaay kàttan suñu mbir duñ ko aj ci waaw loolu dafa mel ni moom la porte parole bi wax mu ne Touba xaarut eh, dara ci kenn euh, est-ce que tey jii jotul aussi Touba gën a organiser wu pour xaw a jël distance am tuuti ci pouvoir ak force bi mu yor ngir euh, di jiitu pouvoir top si ginnaawam. waaw discours boobu du mën a def lu rafetlu ko muy sunu waajuru sëñ Bass Abdou Khadir euh, kaddu gu am solo la wax foofu ca ñu bari ñuy bàyyi xel ay discours waxtu wi waxtu wu ne mi ngi delloowaat murid yi ci ne ah démb la nii la woon tey it lii la war a mën a nekkaat muy gën a gëm suñu bopp. gën a mën a doxal suñu bopp ba ne ak cib leen ndax nag gëm naa ne wax na ko nit koo xam ne boo yeewoo boo tegee sa photo ba jant bi soo ay nit a nga lay ñëw di la jox ay addee wala nit di jël lu nekk eh, di ko jaf ngir jëmi sëñ Tuubaa ca fii rek ngay gis ab bàmmeel boo xam ne nii tey borom nekkutu fi waaye bàmmeel ba wàññi ko yor ay këri kër kër ay dépasse fii rek nga koy gis ci Tuubaa di génne ay millions kon gëm naa ne ku am lu mel noonu warutoo xaar dara sa dara ci lenn mooy li ñu manqué mooy organiser organiser nag dëkk bi am na ñoo xam ne am na nii diplôme ay bokk ci sëñ bi doon ay doomi Tuubaa ay jàngkat ay ñoo xam ne nekk nañ wër nañ adduna bi yëpp am ay expérience ci wàlluk état am ko ci wàlluk euh, bitim réew am ko ci domaine yëpp ma jàpp ne lenn ñu manqué muy wàlluk organisé nin def ba yoon wi organisé wu ñun ñëpp ñu àcc suñu mbir ci xalif sanaa di murit ak ki yor kàddoom am na wàllu organisation bu des ci sun biir tey buñ ko defee ñun ñëpp kenn ku ne gis ci boppam ñu bañ koo def kii ak kaa wala yemale ñëpp kenn ku ne xalaat ba nga am muy ay kër Sëñ Tuubaa ñu def ay bureau fas yéene di liggéey ci lu développé dëkk bi kon gëm naa ne dëkk bi dana egg foo xam ne duuta dépendre ci leen ndax gëm naa ne ba sëñ Mourou Moustapha di wax raay bi bi sëñ Tuubaa di liggéey lu sëñ Fallou liggéey lu jumaa ji ak mboolem sëñ Saliou li mu fi def ak ak yeneen ak yeneen gëm naa ne joxe nañ ay ay sëñ yoo xam ne sëñ Mourtala sëñ Mountakha it wañ ñu ko def lii nga xam ne mooy université yooyu yëpp ay signal la yoo xam ne suñ tënkoo ci organiser leen bëgg ci dëkk bi danañ ko am incha allah. voilà ñu des ci wàllu diine jooju ñu jëm ci communauté chrétienne bi nga xam ne également yenn a bokk diine ji en tant que ay kilifa ñu gis ne coow juddu na fa ci mbiru voile yooyu nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ci ay kàddoom yow bi ngeen ko déggee yéen aar ndonoy mag ñeen nan ngeen ko jàngatee. loolu damay ñëw ci loolu en tant que kilifa diine en tant que ku jiite ab association conversation taxaw ndonoy mag ñi ca ma doon wax ne ay chrétien ñëpp lan dem seeti parce que réew mi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ci lu rafet li nga xam ne seq nañ ko ay at ci ma jàpp ne réew mii di Sénégal ñaar yi nga xam ne ñoo ko fondé yor muy bu kilifa diine yi jàllee muy wàllu ethnie ak wàllu li nga xam ne mooy religion ci damay wax ne toujours nan faire très attention ci ñaar yooyu muy wàllu ethnie tey ka séeréer ba ak couleur euh, ba ay kallan joola ba ak nangam ay kallan kon loolu nga xam ne moo fi des nan ko gën a sàmm parce que loolu mooy li sàmm réew bu loolu jàllee muy wàllu religion wax naa ne ñun def à très attention loolu bokk ne ci li tax tey ñu sos convergence taxaw noonu mag ñi parce que gis na ay danse yu baree bari yoo xam ne mi ngi tuuse wàllu religion ci ñu bëgg réew mi nekk ci jàmm kon loolu ñun paa yi ñu ci dox lépp bëgg réew tonk ci jàmm ndax tey mbir moo xam ne mu sensible la mbir moo xam ne mu am euh, euh, mu danger la moo xam ne nañ ko moytun kon tey loolu prêtre bi wax man dama gëm ne chrétiens yi am nañ seen ay écoles yoo xam ne privé la ñoom ñu ciy jàngale seen diine ñooñu am nañ ci plein droit ndax pays bi pays lay ñun ñii ci suñu jëmi boppam am nañ ay écoles yoo xam ne ku mel ni jàmbaar ja Cheikh Mouhamadoul Mourtala euh, sosoon fi ay école al azhar mu dem ba génn frontière bi ci ñoom ñëpp di jàngale diine di jàngale wàllu àdduna tey am na luwaay yoo xam ne nii ci jëmmi boppam teg nañ ko fa mu sartanteeg diine kenn du ko ko kenn mënu ko bañaxe kon noonu la walaa balee ci ki nga xam ne tawate ab chrétien la ma gëm ni mbir mi buñ ko yóbbu ci wàllu diine parce que mbir la moo xam ne danger la li ma wax waxtu wu ne dañ koy bàyyi xel nañ koy yëpp indi ci wàllu politique wàllu politique mooy lan ki wax en tant que premier ministre moo nekk chef du gouvernement président Diomaye Faye nekk président tous les Sénégal donte man opposant la ànduma ak moom sama président la premier ministre sama premier ministre la ma gëm ne moom dafa xaajalewut wàlluk politique euh, wàlluk opposant ak wàlluk pouvoir nit bu yoree etat tey moom mu daan wax naan almet gi for naa ko gi mën a taal réew mi jàpp naa ne musu koo mën a for tey jii la koy soog for ndax daaw at yi wees yëpp daana wax cet réew mi lum lum saxar saxar du tàkk waaye tey jii bu waxee ci lay gën a gi mi ngi ci loxoom ndax mooy gouverner heure bu génnee kàddoom wax nit ñi dañuy bàyyi xel ci kàddoom ci kàddoom ba mu toogee ba léegi si mooy xupaate la ba mu toogee ba léegi si dal ci kaw nit ñi la muy wàllug média bi wàllug sëriñ gi wàllug politique bi wàllug yëpp la tey jii wàllug euh, euh, religion kon gëm naa ne euh, le premier ministre Ousmane tonk na xam ne nekkutut opposant chef du gouvernement la ndax xam ne ay waxam ndax am na loo xam ne boo boo nekkee chef du gouvernement ci ngay xam la ma doon wax réalité réew mi ba nga ko nekkagul xamaguloo ko waaye tey bu mi ngi mel ne télé bu la tegal la ci nekk lépp xam na ko kon tey ay waxam ci biirum nekk wërta bokk ay waxam ci saal wërta bokk ay waxam ci biti ndax la muy xam ñu bari duñ ko xam kon gëm naa ne ay waxam ki tey war na koy mesurer ba nga xam ne am na wax yoo xam ne dafa am nun koy lijjantee nu bokkut ak nii ci li ma wax rek chrétiens yi am na yeneen yu am tey ba am fii Tuubaa am feneen ci wàllu diine la faaw ñu nangul ko ci président yi jiitoon nag premier ministre dañ ko nanguloon nangul nañ ko ba ci ñun ñi ndax boo xoolee ci jamono sëñ Saliou fii ñuy wax commune bi ab du parité ah mais dañ koo nanguloon cité religieuse bi di tuba kon dañoo jàpp na it yow boo dee ab julit foo mën a nekk nga bëgg say doom wéy ci wenn sart yi jàngale diineem tënku ci li diineem wax gëm naa ne da ngaa war a dem ci école yi julit yi ah doxal fa lu mel noonu wala école gouvernement ba doxal fa lu mel noonu leen war a jàng ñu koy jàng leen war a jàng ci yeneen école diine ñu ko yéeg waaye boo jëlee sa doom yóbbu ko ci école privée boo xam ne école chrétien la ah ñu fay ñu toog seen i croix di euh, di sol seen i yéeri di modd bi ko bi leen bi nga xam ne moom la leen ko seen diine jàngale gëm naa ne yow nga bëgg a ñëw indi fa la la si diine jàngal da gëm naa ne bu ak tooñ di am sax yow yaa kon dama jàpp ne en tant que chef de gouvernement am na kaddu yoo xam ne warutu ko yëkkati da koo war a waxtaanee ci biir ndax ku mën a toloore borom ñaari tur yi war a mën a toloore nag ah, borom ah, wàll yi ci ay école privée man gëm naa ne loolu yëpp lu mat a bàyyi xel ndax yéen fi toloore bari na. voilà léegi peut-être pour jeexal ci foofu gis nañ ne également euh, wàllu diine ji est-ce que jotut ñu. gën a nekk benn ndax gis nañ Medina Gounass aussi li fa xew. Ah. Euh, taxawoon na nuy mag ñi ban jàngat la def ci loolu. ñun ñu ngi doon préparé dem Medina Gounass ndax yooyu yëpp histoire yoo xam ne mus musut a posé mais mi ngi tàmbali di posé di laal diine ji ci tey gëm naa ne loolu ñun la taxoon ñu xalaat convergence boobu mu ñëpp ñu nasu ci te pourtant convergence bi ah du tënkuut rek ci ñi nga xam ne ay jullit kese lan tënkuwut ci ñi nga xam ne tareex bii la bokk wala beneen tareex la bokk tënkuwut ci li nga xam ne tam idni bii la bokk ak idni bii la bokk am na ci ñoo ne tamit parti yi lan bokk am na ñoo xam ne Pastef lan bokk am na ñoo xam ne APR lan bokk am na ñeneen duñ ci wax wàllu politique nan lan war a fexee ba jàmm jooju am kon gëm naa yooyu yëpp ay mbir la yu ni yoo xam ne daawuñu ko gis ci ñu ngi koy tàmbalee gis kon mën nanoo gëm ne fii ñu toll tareex yi fene ci réew mi ak ñi ngànk diine war na noo mën a def sax assemblée générale toogaat waxtaanaat ci seen biir waxtaanaat ci wàllu diine ji ndax gone yi di saaga kilifa diine mm, e, e, yi ak fondateur tareex yi ca nekk ci yeneen i réew ca ñooñu respecté seen i seen i kilifay réew ñemuñu koo def ci réew yooyu ñu nekk di ko def ci réew yi ndëkk yooyu yëpp kilifay diine yi war na noo toog def assemblée générale waxtaanaat lu jëm ci liñ bokk ak liñ moom muy diine ji gëm naa ne loolu war naa mën a am ca bala yàggit yaakaar naa ne loolu danañ continuer di ko dox ndax demoon nañ ci xalifa Thiénaba ba moom ci boppam mu wax ne pare na pour dem ci sëñ Mountakha ak sëñ Baye Mandiou pare dem ci mboolem ku nekk euh, kilifa diine ci réew mi pour ñu waxtaanee mbir mi kon loolu yaakaar naa ne xalaat la bu am boo xam ne gëm naa ne dana continuer dana euh, danañ ci dox danañ ci wax. voilà sëñ Modou ñu dugg ci wàllu politique APR nga bokk euh, ñàkk ngeen guur gi seen daa amadu Ba 36 pour cent lam am Sall dem na bitim réew. ñi ngi jub ay élections législatives yéen nan ngeen di waajalee législatives yooyu. waaw ni koy waajalee li may wax rek waxtu ne ay waxtaan yu bari mi ngi am ay euh, yu bari ñu ngi ci gisee di ci waxtaan ma gëm ne fii réew mi toll euh, waxtaan yooyu bu amee ci ay parti ba pare waxtaan yooyu bu amee ci ay coalition ba pare jàpp naa ne sur intérêt ñun ñëpp mooy ñu ànd nekk benn sunu intérêt ñu ñëpp it mooy ci biir APR ñu am solidarité parce que ñun ba fii may wax yow ñun opposé wuñu de ñoom ñooy gouverner ñoo nekk opposant ah ñun ba léegi si may wax yow kenn opposé wul ñoom ñooy gouverner ñooy opposant ca loolu it dama ci gën a bàyyiloo xel le président Diomaye Faye parce que nag gëm naa ne fii réew mi toll ak ni situation yi toll ca moom mu wax ko ne moom la yéene pour moom la yéene pour jox ko nguur gi wala yu mel noon gëm naa ne opposant bi bu fekkee ne ñoom teelu ñoo bàyyi xel ah nekkoo seen nekkoo benn sulatif yi ñun ñëw bu fekkee ne yàlla dogal na ñoom ci seen jëmmi boppam ñu gañe ko gëm naa ne la amoon ci Karim Wade ñu di ko bañ waaye la amoon ci Senghor Abdou Diouf mën naa am mën naa dem mu doxal ñaari at wala ñetti at jox ko nguur gi mu continuer am ñu def passation de service moom mu continuer dem ay ay élection yooyu yëpp nag lu jar def attention parce que Sénégal danoo yàgg bañ jël nguur gi di ko passante wala ñu di ko joxante ca opposant bi bu fekkee ne yàlla dogal na booloo ñun nekkuñu benn amuñu assemblée nationale gëm naa ne loolu bu fekkee ne ñoom am nañ assemblée nationale loolu mooy faral mooy mooy ami kon loolu est-ce que loolu est-ce que loolu dina yomb bu fekkente ne nii gis nañ ne kenn ku ci ne yaa ngi wut mbooloo ci ci ci yu la wër Amadou Ba mi ngi taxawal mbooloom fële wax nañ ne Khalifa Sall mi ngi taxawal mbooloom Idrissa Seck dégg guñ ko euh, est-ce que loolu dina militer en faveur de regroupement bi ngay wax. li ma ci mbat a bàyyi xel mooy ñoom mën nanoo wuti seeni mbooloo. mën nanoo wut si seen i coalition waaye li am solo mooy li may wax rek ci ab jal ndax tey boo demee di naaf sa gerte da nga koy def ay jal soo ko defee ay jal ba pare boo paree ci nga koy def naaf ko boo ko naafee nag mooy wan ne ñëpp ànd na nekk benn kenn ku ne na dem wuti coalition kenn ku ne na def ab jalam waaye buñ paree nan boolee jal yi mu nekk benn mu nekk benn coalition loolu gëm naa ne suñ ko defee dana doon loo xam ne lu yomb lay doon ci gëm naa ne ñoom it seen i xel ak seen xalaat war naa mën a jëm foofu parce que am na ay expérience politique ci xam ne mbir mi fii ñu jëm bu fekkee ne continuer nañ loolu yaakaar naa ne loolu lay jur kon gëm naa ne mën naa yomb lool ci tey buñ continuer seen coalition parce que li may wax rek lu ma ta bàyyi xel la buñ fexee ba passation boobu am ah gëm naa ne euh, ëllëgi si biir dana doy waar ca nit dana mere euh, ku la defu dara parce que nag fi situation yi toll ak bi fi mu toll gëm naa ne ñaari occupation parce que boo xoolee ne tey Basirou Diomaye bi mu demee le président demee euh, France ah tey ci suba sa ama avion bi di teer Ousmane Sonko tiré na ci France ah tey jiit bis bu set nga gis yu mel noonu di faral di am man li ma bëggut a comprendre mooy lan la lan la laa mënut a comprendre parce que man dama gëm ne nguur gi moom moo ko joxoñ waaye nag nan bàyyi xel dogalu suñu borom la ndax ki nga xam ne mooy jomaay musuta xalaat na day falo kon kan la doon ñaan ak kan la doon xalaat muy su président euh, premier ministre Sonko mu falo waaye yàlla moom la ko jox jox gi ko yàlla jox nag moom ci boppam tamati mënut a fexe ba fal falloo Ousmane Saamu ca yàlla jox Ousmane Sonko ca yàlla jox loolu lu mat a bàyyi xel la waaye ni situation yi di demee tey ñëpp xam ne ne jomaay dafay mel ne day xëy di dox tànk yu rafet waaye bu xëyee di dox tànk ngir rafetal bu ci suba saa Ousmane ma ngay opposé wu moom de attaque jàpp na opposant la bu taxaw loolu nag mbir la mu may jàngat moo xam ne bu fekkee ne moom bëgg na nguuram gii muy nekk muy nguuru jomaay gi nga xam ne moom moo ko joxoñ bëgg na mu nekk ci jàmm gëm naa ne moment bi ñu toll joxe ay ay ay ay résultat ak liggéey ci li nga xam ne mooy yitte askan wi jàpp naa ne moo gën a yomb wala moo gën a normal que tey nga bëgg nekk di gouverner ba pare nekk opposant voilà sëñ Modou kon ñu bàyyi la xanaa sa kàddu yu mucc yi la laajul nga mën ci dellusiwaat tàggoo ak mbokk internet yi. jërëjëf El Hadj Modou dama koy tënkaat rek ci li ma wax léegi nii Sénégalais yi du ma magom waxoon naa ko waaye magom xamoon naa ko waaye magom waxoon naa ko Sénégalais yi nan bàyyi xel ne lu législatif yi ñuy ñëw na opposant bi gën a nekk benn say gën a nekk benn parce que nag lii bu fekkee ne loolu amul ba ñoom ñu yor majorité jàppal ne mën naa doon trois cent wala deux cent mu jël nguur gi jox ko ko dem comme ni Abdou Diouf defal te loolu bu boobaa yaakaar naa loolu lañ doon bañ ci jamono yi Abdoulaye Wade réew mi di ko bañ na ka jekk kon la ñu ci mën a muccal ca loolu mooy ànd ñun ñëpp nekk benn mboolem opposant bi nekk benn say làq seen ay intérêt kon loolu lu ma signal la bu may joxe boo xam ne lu mat a bàyyi xel la ci kanam man nag heure bu ma waxee danaa bàyyiloo xel nit ñi lay ñëwi ndax en tant que président bu nekk yor am réew dafa guloo fa six mois yu mat naan diw laa ko yéene diw laa ko jox loolu signal bu mag a la kon boo xoolee moom mu ngi occupé gouvernement bi occupé opposant bi kon mel na ni opposant amut boo liggéey si biir leneen lu am lu ne nan xam ne ñoo ko def suñu bopp kon loolu daal maa ngi koy prêter attention ñi nga xam ne mooy Sénégal yi di wan ne it réew mi réewum jàmm la ci réew mi yii di fi am musu fee am na ko nit ñi bàyyi xel ba nga xam ne ñaar yi ñu mooy tund ko wàllu ethnie ak wàllu religion lu mat a mooy tund ko dama koy bàyyi la war xel Sénégal yi gëm nag am réew ci unité ak booloo lañ ko yore waaye kenn du ko yor ci xaajale ko ak kii fee la far ak kii kee la àndaloon am na ministère de agriculture ci boppam man maa ko wool sama bopp ba ma ko woowalee sama bopp dana ma ñaata nga am daaw ma wax koko ko mu ma ñaata nga am ci engrais ma wax ko ko mu ñaata nga am ci sëpp ma wax ko ba ma ko waxee ba eggal dana ma yow kenn waru jox te it da am foo fare kenn wóor laa jox ñaareel ba mooy da ngaa war a jàngale ñu ni béyee ma jàpp ne li ñuy wax ci rupture loolu amut parce que fii am na sëriñ soo ne ni ñoom ci seen jëmmi boppam jox nañ leen sans apport joxoon nañ leen daw ah, ah jox nañ ñeneen ñoo xam ne sax xëy na béy ñu ba tey jii sax am na ci ñoo xam ne euh, euh, est-ce que ñu ngi tudd ay journalistes journalistes yooyu ñuy tudd est-ce que sax joxuñu leen ah ñu bokk ci ñoom kon am na ci yoo xam ne nii bu fekkee dañoo wax ne réew mi dafa bëgg a nekk rupture da ngaa war a yemale ñëpp ab état dafa war a yemale ñëpp képp koo xam ne ni da ngaa war di bay dan laa war dan laa war a jox amul kii parti bi la bokk amul kii parti bi la bokk waaye tey ku mel ne sëñ Modou Bara Dolly yàgg a bay ay maamam di bay mu am 60 ans nga naan ko dama lay jàngal nu ñuy baye jàpp naa ne bala ngay jàngal xalifa yi ak mag ñi nu ñuy bayee bay agsi ci man ñi ma mag yaakaar naa ne bu boobaa cinq ans yi day mat kon yooyu yëpp ñu ngi koy wax ci wàllu rupture ci rupture boobu amut parce que ñi ngi xool ku am nday ku mu amoon euh, nday ak di seet ku leen neex ak ku leen neexut ak ku àndoon ak Macky Sall ak ku àndoon ak Macky Sall ko ah ñu wax ko Sonko de waxu ko woon loolu ak Jomaay loolu laa dégg xaw ma nag loolu am la wala lu amul lu leeruma xaw ma lu ñuy wax ci biirum néeg la ba pare wax ko lenn ci biti waaye la ma wax déggoon ko mooy premier ministre dana koon joxal ñëpp waaye loolu nag amut defee ñu ko noonu danoo xool la neex ñi ànd ak APR di bay yor ay tool joxuñu leen ko xool ña leen neex ñu jox kon yooyu yëpp dara du dara du ci dëgg waaye nu ma mujjee joxuñu ma sama jiwu man jënd naa comme ni ñëpp di jëndee ah di bay parce que loolu lañ xam ah, waaye boo nee dafa am nga xool ña leen neex nga jox leen ah bay set ay na journaliste est-ce que sax ci ay information léeruguma waaye dégg naa ne ah, ci ay information ñu ne am na journaliste sax bu ñu joxe kon yooyu yëpp est-ce que rupture la ah ah, ah waaw fii ci Touba est-ce que boobu am na kon ah ah man nag bëgguma wax lu ma leerul parce que man toujours lu may lu leer naa ñu lay doon dégg naa laa wax na leer waaye li wér ci wóor mooy man moom kenn waxuma maa woo ministre bi mu ne ma ci jëmi boppam joxoon na la daaw du la jox ma ne ko nag bu fekkee APR tax ñu may jox kon kenn du ma jox ndax moom laa doon waaye nag bu fekkee réew mi tax ñu may jox ab sëriñ ab sénégalais nin joxe ñëpp lan may jox ca loolu la premier ministre waxoon doonte defoo loolu wala mu déggal la leneen loolu lan wax ne moom lan la waxoon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu egg ci màggal gi ak jàmm bisu safar bi ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Modou ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon invité bu Senactu incha allah beneen yoon ci beneen invité jërë ngeen jëf salaamaaleykum